Sira Ndiaye euh, maa ngi dëkk Mbour d'abord euh, Politiquement, ci en 2006 euh, à travers Ben mouvement bu créé pour le président Macky Sall muy jeunesse ouverte à Macky muy Jom nga xam dañ ci ay camarades de parti yu bari tay ku melni Thérèse Faye Diouf Pape Malik Ndour ak l'actuel même coordonnateur du de la Cogère, muy Moussa Sow ak ku melni tay Aminata Diaw honorable député avec beaucoup d'autres jeunes camarades Nous avons créé Jom en 2006 Nous sommes le président de la République qui combat politique yi mu euh, étant étudiant ñu en 2008 le président créé Alliance pour la République Nous sommes ci membre fondateur yi avons à travers le mouvement des élèves étudiants avons ñu aussi nous continuons de militer dans la Cogère. Nous avons un grand frère notre collègue Abdouba Moukou à l'époque euh, Bobo ba nous ñu Alliance pour la République di ci bay sunu Je ma célébrer d'abord la femme sénégalaise la femme africaine la femme du monde entier ci sargal Bobo ak euh, euh, souhaiter bonne fête à toutes les femmes ñu ciy madame la première dame muy Marème Faisal. di ci toutes les toutes ces braves dames yi nga xamné ne ay yaay lañu suñu ay wéyjur lañ ak ñi ak ñun ak ñi gëna ndaw ak ñun tay képp kuy jigéen rek euh, ñu ngi lay sargal ñu ngi lay jaajëfal li nga wax dafa am solo parce que lépp dafa ci processus xam nga tey bu ñu demee naan journée internationale de la femme ci xeex la jóge émancipation de la femme ci xeex la jóge parce que jigéen dañ ko jëloon di ko noot jigéen dañ ko jël def ko mu nekk ci suuf mel comme si moo gën inférieur alors que mënuñu wax société sans la femme mënuñu wax développement sans la femme tey jii ku fi nekk jàmbaar jigéen la jur ku fi nekk dara si dara ba am ci yenn résultats yi soo gëstoo sa wet jigéen moo la dooleel ba nga doon li nga doon te tey alhamdulilahi rabbil alamin mi nga xamé né combat des femmes euh damay def un clin d'œil aussi à la société civile ak toutes les associations féminines yi nga xamné dañuy lutter pour la promotion euh, de la femme dañuy lutter pour les bonnes conditions de vie et de travail des femmes jigen ñooñu ñëpp ñu ngi leen ci delloo njukkal di leen sargalalé ci 8 mars bi fi au niveau de l'Assemblée nationale dañ fi am courriel go xamné mu ngi le collectif des femmes parlementaires madame la présidente Awa Job Diop euh, Awa Gueye ko suis la présidente aussi de la commission santé et de l'action sociale depuis 2012 elle est la présidente de ce collectif mu regroupé nag jigéen ñi ne assemblée yëpp amul opposition amul majorité amul non inscrit ñuy ay des yu occasion C'est aussi pour moi me rendre hommage féliciter leen aussi pour leur travail, mais féliciter aussi ak seen li félicité seen liggéey ak sen taxaway fi nga xamné ñoko bokk ñun ñep muy pencum ndaw rewmi tay mi tey ku ne xam na ne bi 2012 nous avons eu la présence massive de femmes à l'Assemblée nationale avec l'application de la parité ci bureau Assemblée nationale ku ne xam na ne Assemblée nationale bureau dafa paritaire xex biñu bëgg xex nak té ñu ngi ci ndax tambali nañ ko avons fait que les bureaux de conseil municipaux et les bureaux de conseil départementaux ont une parité parfaite Nous avons nañ une liste de nous d'abord il faut que la liste soit paritaire pour recevabilité euh, euh, liste bi mais li ñu sétlu moy dañoo salfané dañoo piétiner li nga xamné moy parité au niveau des bureaux des conseils municipaux et départementaux ñu ngi jublu ay élections locales dinañu continuer mener combat bi bu ko défé li nga xamantene ne parité bi ñu wara tek ci bureau yi ñu tek ko benen bi nga xam ñun collectif bi amal nañu solo moy tay la responsabilité parentale. ñu nek nekk benn euh, solidaire euh, bokk lépp euh, xam nañu jafé jafe yi nga xam jigen jigéen am na ko parce que jigen ju nek rek la ngay dund ya ko xam nax violence faite aux femmes yi amna aussi djégo yu am solo yu ci am mais li ñuy may ndam mooy ñu ànd bokk ndey bokk baay xàcceendoo dóorandoo pour que tay les conditions des femmes mën nek des conditions meilleures tay femmes yi mën a euh, exprimer wu mën affirmer wu davantage sur la scène politique sur d'autres euh, structures comme si lu wàllu lu mel ni euh, comment on appelle ça qui privé société privée jigéen ni ñu ngi dans tous les domaines tay bo xolé sax ba ci école yi ak enseignement supérieur bu président di def euh, journée bi nga xamné dañ ci sargal les meilleurs élèves ou les meilleurs étudiants gis nañ né genn wàll yépp ay jigéen lañu. jigéen ñu ngi gëna affirmer wu ci parti politique yi wan nañ leen né bu am jang am nañu ko bu dee compétence am nañu ko bu dee bi nga xamante ne moom la def dans nos partis politiques muy ci walu massification muy ci walu mobilisation muy ci walu animation politique jigéen ñi ñu ngi koy def dans les partis politiques té tay bo xolé li gëna difficile dans nos partis politiques jigéen ñi ñokoy def motax nak ñu fas yéene ànd ak sunu yeneen moroomi jigéen. Nous yi nga xamne ñu ngi ci yeneen politique taxaw pour que ñu jox jigéen femmes, jox femme